bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci teewaayu Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif ak ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si Diop jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe na ko ñu war koo door ajjuma ji ñu jëm incha allah ñu war koo leeral nan la ko sëriñ bi jubloo ak nan la bëgg ñu taxawee ci ba kenn ku ci ne rawatina ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bu tedd bi di xam lan moo ji seen taxawaay kon dinañ jox sëriñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Abdou Latif mu leeral ndigal loolu ni ko sëriñ bi eh, jëmee ci taalibe yi ba kenn ku ci nekk xam ci li nga xam ne moo ji sa taxawaay. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi nuyu bokki taalibi yëpp ñu jotti nu yóbbu Cheikh Mahamadul Muntaxa ñi nga xam ne mooy sunu népp di sunu doyteef di sunu yaakaar ñu mu ne mi ngi nuyu taalibi yëpp leen sant di leen gërëm naka jekk li ñuy jiital suñuy wax te koy wax ma mooy mi ngi sant taalibe yëpp xam ne cofeel gi ko taalibe yëpp amal ak doyloo gi ak yërëm ak yéene ji ak yàgg fi te wér ndax liggéey bi sëriñ bi da ko soxla day wax ne cofeel gu noonu ak yërmale ji da amal taalibe yi cofeel gu am fu boo xam ne yërmale da ko làmb yalwari ji lépp mi ngi dellu ci bokki taalibe yi di xam nu ñuy jariñoo ci sëriñ bi waxtu ñone wone ñu dolli ko ndimbal ci sëriñ bi du dolli ko taafeexi sëriñ bi loolu waxtu ne ñu koy fàggul taalibe yëpp leen ko ñaanal xalaatam yëpp ak bëggam yëpp génn loolu yaari yëf na liggéey bi sëriñ bi dox na teel bi jariñ jariñ ci sëriñ bi nañu am taafeexi sëriñ bi loolu mooy ak bëggam mooy yéeneem moom lay jàngal ci nekk di ko wone kot nag yàlla nañ ci la jeg tafe sëñ bi nuy tam defe ko nuyu sëñ mun taa bëgg nu liggéey ni sëriñ bi yàlla tafeexal koo def yéen jim nu yéen ngërëmul sëriñ bi sëñ bi tafeexal nu ban dañu tafeex yëpp baam am ngërëmul sëriñ bi sëñ bi nag ci biir loolu dafa gis jamono yu xat ji ak lu sànq jamono yomb mu bëgg waxtu nekk ñu gën dellu ci sëriñ bi moo xam ne daa gis am benn jot waruñu waruñu tal dara loolu sëriñ bi wax na ko ci ay waxam yu bari ba ci ko rek daa ko bi ko daa waxoon ne suñu yitte jëpp mooy ak nan am sëriñ bi man am sëriñ bi nag li ci gën a mooy jublu sunu borom jublu sunu borom bon gannaaw adduna moo ne nag wan ginnaaw àdduna ju du tax a bàyyi lekk du tax a bàyyi naan du tax a bàyyi sol mbubb waaye su suñu xol dañuy dégmal suñu borom genn ci lépp àdduna ak li ci biiram ak i ak i naxeem ak i rafet rafetam bu ñu juboo suñu borom nag ci lay mën a ci lay mën a amee sëriñ bi nga xam ne mi ngi dellusiwaat ci bëgg taalibe yi dégmal sëriñ bi rek bañ am leneen bañ a tal dara loolu sëriñ bi ci loolu nag moo waxoon ne daa bëggoon fan yii parce que yéene dundalaat nan ko daan nan ko daan dundale man fàttali ko daaw daa jëkk bu nekk woote na fi bisub xasida bisub xasida yi sax weesu na loolu jiitu na loolu lépp waaye daaw da cee booloon daaw jëkk da cee booloon bisub Zikrullah defoon ko vingt quatre heures daaw moom defoon ko douze heures huit heures ci suba huit ngoon loolu nag la bëgg ñu dundalaat ko ba mu waxee ni ko xalaat ak ni mu ko bëggee ba noppi nag ne woon joxoon na ndigal ne mag sëñ Musayn ak sëñ Yuusu na ñaan dem ci saabas wax ko ni ko bëggee buñ ci bañ ji nu ñëw def yëgle bi taalibe yëpp yëg ko jubóo gi moom mën a ñàkk ndax noonu itam mim la sëriñ bi rek dañ koy mën def amul amul genn bëggul sëriñ bi te dara lu sëriñ bi mbir mu nekk sëriñ bi da cee xool nu ko sëriñ bëggee noonu la koy defee noonu itam mbir mu nekk moom lañu ciy xool nu ko bëggee noonu la ñu koy sante nu defee ko na ban waxtaan itam la waxoon rek lan bëgg gën a leeral daa waxoon ne dana bëgg ban àggee ci ajuma ji nu jëm nu def ko bis boo xam ne si kar lañu tudd yàlla lañuy tëdd njëkkee ba fa def ko tàmbali la heures ci suba ba dix heures ñaari waxtu moo bis bi bañ nappee dañuy def jàng xasida ak jàng alxuraan jàng ko dix ba une ñu laf waajal julli gi buñ jullee ba noppi ñu dallu xewlu ba ñeenti waxtu ñu jàngaat ba juróom-benn waxtu ñu yeewee ko mais buñ ko defee boo ju dañ koy defaat mu ne nag kon ni ñuy def mooy waa dëkk bi moom la bëgg ñu waajal ko dundal ko ci àggee waaye man nga def ko ci xewal yi itam nu ca waay defee nga nu ca waay mane nga defee na moom dana fàggu ay xewal waaye nit ñi itam luñ man nu waay mane rek na ko defee ngir xewal yi doy te xewal itam daa mënta ñàkk ci ku ci bis yi ñuy def ndax kuy sàkku xewal da joxe xewal moo tax mu bëgg ñu joxe xewal bu joxe xewal itam nee buñ ciy nañ fas ndax jumaatul tubaab yi la ko tuddee ajuma joo xam ne ajumay tuubaa la noonu na ko jàppe noonu la ko tuddee bu dee see itam noonu la ñuy defewaat kon nag nee bu ñuy tàmbali nañ fas dañ bu ñuy jàng cib nawet fas-fas yi ñu daan am la waxaat nañu fasaat ko muy nawet bu teel bu tey bu ànd ak yërmande ndox mu barkeel ndox mu jàmm mu sëkk ba nawet bi bu barkeel ñu mën a liggéeyal sëriñ bi façade yi ci magalu Tuuba gi ñëw mu magale ko ci jàmm def ko mu dal mu teey te yàlla def ci jàmm te sëñ bi nangul na ko lu ñu ca def ak yéen a jën jàmm lépp sëñ bi nangu ko loolu bu ñu koy kuy sóobu ci bis ba ku ciy dëggu na nga fas fas ñaari fas fas yooyu waajale ko ko bu ñu ci bis bi nag ni mu bëgg ñu defee ko jox na sëñ bi aussi mi négal sëñ bi aussi dina caa gën ko leeral daara ji dañuy ñëw baas at baas bañ na baas buntu kër sëñ Fallou fekk na yónni ma sëñ Amsa dem naa ca léegi sëñ Amsa bu ñëwee ci baas boobu lay nekk waaye baas ba itam waa daara ji ñaan ñi dañ nekk ci kër sëñ bi jànge fa ca sëñ saalu sëñ bi jàngal ko sëñ bi nekk fa ñu des ñëw ci baas ba yi baas ba itam sëñ Amsa fa lay nekk ak ñiy durus ak kuréelam bay yëkkati waaye dana fekk kuréel daara ji ma nga fa Eh, bu ñu amee nag yeneen kër yi wër jumaa ji itam di kër yi sëñ Tuubaa kër ña waru sëñ Tuubaa gi kër gu nekk waa kër gi luñ man ci dundal ko ci baas nit ñàkk fa di tudd yàlla di jàng ñëpp boo ànd dundal bis bi dañ nekk ca nekk ca penku jullikaay ba foofa la ñuy nekk ak la ko jege lépp ak la ko wër dafa la ñuy sikkaru la buñ nappee fa la ñuy toog buñ napp buñ soxlaa ci ñoom ñoo xam ne dañu génn ci toppatoo nit ñuy jàng ci xéwal yi ci joxe ndox joxe café joxe añ bu jotee ñu ñu ñu nekk ci loola ñuy jàng ñoom ma ñettal dara loolu jàng alxuraan ji itam niñ ko daan defee ci yokk yi ci nañu jàng alxuraan ndax ba lañ jullee jot ñu defaru julli ñu jullee noppi bu ñu fa ne xewal xewlo la ñuy xewloo bu ko defee waa daal ji itam noonu ma ko waxoon bu ñuy jàng base boobu la ñuy jàng ak ci biir kër gi biir kër kër gu mag gi kër sëñ Tuuba suñu itam ci baas ba lay nekk ak ñoom àndal fale fa wala ñu dundale bis bi keneen ku fay fay nekk nag ci kër yi kër sëñ Tuuba yooyu wër jumaa ji boo fee nekkee mel na yaa ngi ci barab bi ci barabu sëñ bi barab yi sëñ bi ñu bëgg ñu dundal ko fa kon noonu lañ koy waajale ni ñëpp waaj nag bu ñëwee itam ànd ak yar ànd ak pasef ànd ak yéene ju sell ak yitte ju mat ñu daan waajal numéro sëñ bi yenn waa jëli bis bis sëñ bi noonu la sëñ bëgg ñu defee ko ni sëñ bi itam amul jenn yitte amul jenn xalaat amul benn pasif pour dimbali taalibe yi bañ dem rek bañ jariñu ci sëñ bi rek ñu def bu sañoon nekk da di yëg sax fexe sëriñ bi ci ci gindiku ci sëriñ bi ci bañu def ci sa xol bañu am gën a bëgg góoru sëriñ bi ndax li waxoon léegi bu nekkee la ñuy waajale am liggéey booy liggéey wala looy yëngu te di cee ñaan barke bëgg nañ nga am ci barke bëgg nañ nga ko war a delloo waaye sa xol moom la ci sëñ bi jiito rek sëñ bi rek nekk ci ndax waaye ndax li leer na bëgg sëñ bi mooy bëgg bala nga ko mën a def da bëgg yàlla waaye bala ngay mën da ngay am sëñ bi kon ñooy ñaar dañoo mën tàggoo nañ ko xam te dégg ko te déggee ko noonu te jàppee ko noonu léegi nag nañ waajal bis bi ci wàccaay bi nag kon dinaa jox Serigne Youssou lu nga lu ci lu loolu mu war a mottali mu mottali ko lu ñu war a leeral mu leeral ko ñu bokk ci soobu ñu bokk ko defe ni ko sëñ bëggee maa ngi ñaan nu itam nu am tafeex sëñ bi ba man ko defee ni ko sëñ bëggee ndax sëñ bi la bëggal njariñ rek noonu la bëgg ñu njariñu kon nag nanu sëñ suñu borom dimbale ci barke sëñ bi ban defee ko ni ko sëñ bëggee ko nag maa ngi maa ngi tàggu ñëpp di bàyyi sëñ Yuusu mu àggale kàddu bu ñu nappee ñu déggee ko noo xam ne ajuma ji ñëw la ñu ñaari koy waajal ndax excellent mu noppi te rek la alterné te ak ajjuma ñetti fan a fi dox attaar àlba alxames kon ñëw na ba noppi kon wàccaane mbir maa ngi noonu wàccaa yooyu noonu yal na jeg tafeex sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum euh, jërëjëf euh, sëñ Lamine defe naa sama kàddu yi li muy jëkke mooy euh, ziar tey sant seen cheikh moom sëñ Abdou Latif di kilifa ci man kon ndigalam moo tax may jottali ay kàddu te kàddu yi cant rek lay doonaat ak yeesalaat ak feddali ndax sëñ bi yàgg nañoo boole liggéey yu mel nii waaye naka jekk mu mët sëkk li mu doon nu itam nu xam ne suñ taxawaay weesuwut taxawaayu murit bu laxasaayu laa yasuna laahu maa amarahum wa yafaluuna maa yumaroon nun bu sëñ bi xasee joxe ndigal rek ci loolu lañuy ñu di jubali def ci suñ lépp ma bëgg ñu xam ne euh, lii tax a jariñu mooy teewlu gi teewlu gi moo tax waa Touba na nga xam ne képp ku yaakaar sëñ Touba dëgg la waa Touba la waaye Cheikh Mamadou Mountakha dafa am xaas bu mu am mooy lépp lu ngeen gis mu samp ko di ko def rek dafay loo xam ne nañ ko déggee dégginu xama aateykum rasulu fa xusuuhu képp ku ko jàpp foo mën a ne ci kaw suuf njëriñ la la fa fekk dëgg la waa Touba ñoo féete Touba war ko dundal muy ajjumay Touba waaye murit fu ñu ne ajjuma jooju mu fekk leen fa nañ ko dundal foofu def ci kem seen kattan ndax loolu du dara lu luy wane ne lii soppi jamono sëñ Touba moo koy def ndax lii boo ko seetloo xam ne am na aw tur woo xam ne sax tur yi ko sëñ bi tuddee woon mooy sawratul bayda di li ñu tuddee révolution maanaam ab soppiku goo xamante ne lépp day yéwén lépp day rafet lépp day day day day leer nañ te deret du tuuru xat du damm loolu nag sëñ Tuubaa rek moo ko moo ko amal moom moo def liggéeyam bi ba mu sotti menn moom moo dem àndut ak kenn liggéey liggéey bi ba mu sotti bàyyee ñu ay ngànnaay yoo xam ne xasida yi rek dongo yi ku ci góorgóorlu ci jàng xasida yi xamal ne moo féete kaw dajale armée yi ci moon bi yëpp di leen xeexloo ndax Sëñ Tuubaa dafa gañe xare bi jox ñu xaside yi ñu takkook moom ci la suñu aaju yëpp di fajoo ci la suñu gàllankoor yëpp di dañee loolu kon di sàkk ay bis yoo xam ne dañ koy bari ndax ku ne xam na ne toll nañ jamono joo xam ne yàqkat bi di noon bi di iblis moom dafa yokk rythme bi mu yàqee kon moom yitteem daf koo yokk ci yàq yi kon sëñ bii moom sëñ Muntaxa bu yokkee yitteem ci defar gi ak di dajale dongo yi ñuy tudd yàlla di di di di jàng xasida dafa dafa xam ne loolu mooy yoon wi ñuy may nu nu mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono kon nan ko fonk rawatina nag nun waa Touba gii nga xamante ne euh, li wër jumaa ji ku nga xam ne ne daayira yi nekk Touba rek bu ñu dikkee ñu ànd duñu xaj sax ci penc bi day mujj sax am na ay penc ci biir Touba yoo xam ne dañ koy dundalee foofu ndax ajjuma dañ fay julli ajjuma kon war faa xëy jàng fa alquran jàng di fa di fa tudd yàlla mu doon loo xam ne kon sëriñ bi dafa dafa wane yoon wi mu tàmbalee ci jumaa ju mag ji waaye fépp fu ab taaliba ne dina fa àgg danga naan sax fu laafab Seydina Jibril àgg ndigalam lii dina fa àgg loolu yàlla suñu borom defal na ko suñ Muntaxa kon nag ñu ngi tàllalaat loxo ñëpp di déglu it lii sëñ Cheikh wax ne togg xéwal yi moom bu ko kenn jombale sa bopp ndax donte ab sopeer nga mën a togg xool foo xam ne ñu ngi fay tudd yàlla fi la gën a jege nga yóbbul leen ko loolu mooy liggéey bi njabootug sëñ Tuubaa gi it xam nañ ne ñi wër jumaa ji yëpp genn kaddu lañ am mooy kaddu sëñ Muntaxaa mooy seen kaddu te gis nañ ne saa bu ñu santaanee bisub xasida nun yaatu gi ñu gis ñu amal nu ko ñu may na ko ak lañ ñu fay faggul ak lañ ñu fay defal loolu moom ku ne xam na ne kon ñoom itam kenn ku ci ne dongo ya fa nekk ak waa kër gi ak daayira ya ñooñu buñ ca jàppee foofu rek képp dina dundal kër gi loolu suñ ko defee dina mujj penc mi na mu war a riiree ak na mu war a feesee dell dinañ ko def te dina ànd ak dal dal gi daal mooy li ci am solo loolu kon mooy kàddu yi nga xam ne moom lay dolli sëñ Cheikh di soññaan nag moom waa Hizbut Tarqiyyah nu xam ne nooy soldaaru bis bi soldaar yi moom suñ tal dara fii ak al ajjuma nu fexe ba dara bañ a sooxe ci sunu wàll ci bâche yi ñu war a def ci sonorisation bi ñu war a def di woo tamit ñi nga xam ne naka jekk noog ñoom du ñu ñaar benn lañu dañu ci daan jàppale mooy ñi nga xam ne dañu daan indi seen i bâche ñi nga xam ne dañ daan indi tamit seen sono ak ñi nga xam ne dañu daan jàppale loolu ñu ngi leen di tàllaat loxo ndax bis la boo xam ne bu fees dell ak njëriñ la boo xam ne njëriñu rek mooy li ci sëriñ bi jublu yal na nu yàlla suñu borom kàttanal ba nu am melo wu tax nu mën a jëriñu ci bis bi ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha te lim ci fas lépp. moom mu ji ak yàggam fi jiitu ci euh, ci dara ji Seexuna Ahmadul Xaddim barke borom Tuubaa jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif ci kaddu yi leeral yu am solo yooyu jërëjëf itam Serigne Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ci fàttali ndigal lu Cheikh Mouhamadou Mountakha di fàttali ne ndigal li ajjuma ji ñu jëm lay doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ak ajjuma ji ci toppaat di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai kon muy ñaari ajjuma yi nga xam ne ñoo sësaloo muy bii ñu jëm ak bi ci topp ñu fas ko yéene nag defee ni ko sëriñ bi diglee am ci yitte ak pas-pas fas yéene defee ko kem ni mu ko santaanee di ñaan suñu borom ci barkeb sëriñ Touba mu dajal ñu ci ak tawféexu sëriñ Touba liñ ci def lépp itam mu nangul ñu ko te yàggal fi Cheikh Maodo mun taxaate mu ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk juddi di mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr porte-parole xalif général des Mourides ci njiital sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacké Falilou jiite daara alxuraani ci Touba comité de coordination grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint Coran di kuréel gi amal jongante bu mag bi ci alxuraanul karim ñu tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ñoo am mbégte di yëgal mbokk jullit yi mbokk sëriñ daara yi ak mboolem ndongo yi ne mbindu mi aju ci troisième édition bi dinañu ko tàmbali li ko dalee ajjuma benn fan ci weeru mars 2024 ba talaata fanweeri fan ci weeru avril 2024 ci mbooleem gox yi ci réew mi képp ku bëgg a ci jongante bi mbaa nga bëgg ay leeral ci mbindu mi mën nga jokkoog Serigne Khady Diakhaté ca Diourbel 77 613 38 67 Kolda Thierno Mohamedou Arona Silla 77 510 82 43 Ziguinchor Ibrahima Fall 77 575 41 92 Kédougou El Hadj Oumar Minté 77 438 92 16 Fatick Cheikh Akibou Thiam 77 518 91 45 Louga Oustaz Alioune Ngom 77 923 43 37 Ndar El Hadj Ousmane Sow 77 538 66 48 Matam Cheikh Ousmane Dia 77 784 15 46 Kaffrine Habib Dramé 725 34 64, Dakar, Oustas, Cher, Djouk 77 725 36 09, Thiès, Elage Malik Diop 77 552 28 79, Tamba, Elage Mustafa Wan 77 534 76 12, Kaulak, Elage Lamine Fall 77 913 86 74. muy ubbiteeg mbindu mi ci troisième édition grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran li ko dalee benn fan ci weeru mars ba avril